indi indi tey ah, du dara du dara xam nga ñun moom xam nga tey dama taal oto bi ñu ñëw xam nga corona bi mais tey doo ñëw ñu laal weñ bi. muy dara muy dara sori dara xam nga waaw acca dama namoon boto rek dama namoon boto ma na xaar ma def loolu rek la du dara waaye. mu ne ma du concept bu bees mais ay mbir la dafa am mbóot bu ne si ginnaaw wala waaye déet mu naan ma ay mbir non dara du dara est-ce <laughs> que du ay mbóot Sidi non bàyyi du mbóot parce que nee nañ tey samedi tey bii nii samedi Sidi Diop la am na ñuy wax loolu bien évidemment y a beaucoup artistes yoo xam ne ñu ngi fi tey di tëgg mais tey ñëpp ne nañ samedi Sidi Diop la pour yow lan moo waral tey ñu ne samedi Sidi Diop la ah non du dara dara yaay waat nii fay fay fep dellu barke sant di boobu yow nee naa la sa yaay sa baay maa ngi profité di leen gërëm waaw waxal di leen baalu àq di leen baal àq di ñaan yàlla dafa jàmm Sénégal bu baax a baax a baax ñëpp am jàmm ñu tëgg ñëpp yàlla yàlla defal ñun ñëpp ñu fexe yow nee naa la benn maala rek laa la mën a nangul mooy maala mag waaye maala dàq way maala gën a yaru maala gën a intelligent amul amul ci réew mi yaay seen baay waxal bak Serigne Sall Gambie Gambie mooy sama premier événement moo nekkoon deuxième yaa leen dàq way yaa leen dàq way yaa leen dàq way sam nga gambi toj ko dem Kaolack toj ko sant yàlla rek xam nga Kaolack moom ma bëgg Saloum Saloum yi dañu ma bëgg te loolu annuel la chaque chaque lendemain Korité rek dañuy dem Saloum bégal leen donc mooy profité di leen nuyu wala di nuyu waa Super Étoile surtout sama grand frère Ibou Bambara chéri Matek Fatou Talibé Baye bi maa ngi leen di nuyu bu baax waa Saloum gépp maa ngi leen nuyu ñi nga xam ne aussi dañoo yottoon seen jiyee ñoo ba ci buntu bi te mënuñu dugg maa ngi leen di jégaluwaat maa waxtaan ak ëpp ñu xool ñu xool yaay seen baay maa wax ak ñu sa dernier sa bi nga génne moom mooy taj temps ñu bëri nee nañ que ni single la boo xam ne c'est très commercial parce que ñi ngi si woy c'est des personnes connues muy Mame Ndiaye Savon ak bébé Eva loolu stratégie la pour Sidy Diop wala non ça m'a venu naturellement ça m'a dama dama dama am envie way leen way leen Eva sama doom la xam nga yàgg ma bégee Mame Ndiaye dañoo dajee appel comme ni ma ko waxee woon ci appel bi mu ñëw xam nga nekk nit ku neex wàcce boppam xam ma gis ni tamit xaritu bébé Eva la ma way ko ci way wi ñëw tudd way naa ci ñu bari ñoom Yacine Lo Khady Lo Ndeye Tuuti Hélène suma doom Papa Samb xam nga ñoom échou yi ñëw rek saf nit ñi ma woy ci nag naa ne tey mooy soirée bi waaw ñu xaar ci soirée bi bébé ñu ngi ko ciy ñëw amaa ñu koy xaar ñëpp ñu ñëw waaw mais fii fii ne ñëpp ñëw tey ñëpp ñu ñëw tey di nga gis ñeneen sax waaw préparation jeunite foo ci toll parce que ñu bëri ñu ngi wax naan communication bi dafa dees artiste bu toll ni Sidy Diop artiste bu mag la buy def zénith war na def communication bu doy ñu ngi ci ñu ngi ci bu baax parce que dafa am lu jiitu zénith nag dama war a génne sama album bientôt buñ ci jógee nag incha allah man déjà dans une semaine maa ngi war a dem Paris nekk ci samay publicité donc mooy profité di woo waa diaspora bi yëpp sama mbokk maliens yi gambiens yi alpulaar yi Ah, waa Mantes la Jolie sama mbokk tukulóor yi ah, waa Italie Allemagne Belgique ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp Sweden Angleterre ah, ñëpp maa ngi leen di woo Paris nag bu kenn bu kenn bu kenn def si dafa wàññi showbiz léegi bu njëkk si di day jékki tey showbiz bi kobas kenn ñu ne si di Jóob la non non non léegi si di nanguwul yenn questions yi sax da koy nangul ñoom jaañaar yi ay ñoom maas yooyu noonu parce que nangootul showbiz bu xew amul problème parce que toll ca def toll am na yoo xam ne boo ko passé da ngay bàyyi xam nga booy def ko man bi ma ci tollee def naa ko léegi nag dama tollu liggéey waaw dama toll ci liggéey xam nga dëkk ci kër yi baax yi ah jël sama papa ak sama yaay dugal leen ci kër yi baax yi yóbbu leen màkk ñu dama ko ñëw war ci oto yu baax yi takk suma soxna teg ci sama wet fondé une famille. mais jàppoon da nga war a showbiz aussi. Ah, parce que si nga bokk ba tey maa ngi showbiz parce li ma def nii rek weesu ko. maa ngi ñëw fekk fi suma soppe yëpp a ngi taxaw ma ñëw taxaw bàyyi suma yitte yëpp di wax ak ñoom di bégg ak ñoom loolu rek weesuwu ko mais yama daan def yooyu moom xam nga ba ma ca tollee def naa ko mais à un moment donné day monotone bu ma tollee ci leneen damay que nag léegi Sidy bu demee bay tëgg Zénith am na yu bari nag yoo xam ne dépassé na ko fu mu toll nii maa ngi wàcc suma album ak Zénith mhm. te incha allah na ma Paris gépp xaar te xam ni surprise yu mag ñoom Géwal Mbaye Sène ah ñoom ñoom Sophia ñoom Sophia ñoom Géwal Mbaye ñoom Awa Géwal ñoom Ngóone Ah, ñëpp a ngi may xaar restaurant la Fallou ah ñoom Khady Lo ñëpp ak ñoom Awa Yafa Farid yëpp ak may xaar te maa ngi ñëw incha allah te bu ma ñëwee ñu xam ne lépp dëgg la. gaa heure bi jël na rek. waaw président président réew mi euh, waaw mais xanaa xanaa ñaanal ko xanaa ñaanal ko yan bi oyof. waaw di ko ñaanal ñi nga xam ne aussi ñoo àndoon ak moom nekk ci campagne bi euh, démérité wuñu parce que ñoom ñëpp dañoo bëggoon a jël réew mi pour defar donc moom nag la fi yàlla teg parce moom la yàlla choisir pour mu jiite réewu Sénégal commencé ko ci 2024 bi yàlla ko ci dëkk bi yàlla na ko suñu borom oyofalal ba mu oyof ah, loolu rek laa am est-ce que dal na sa xel en tant que parce que gis nañ ministre Birame Souleye Diop am yenn kàddu yu mu yëkkati commencé guñu liggéey nag commencé guñu mais nee na bu leen ko parrainé dara bu leen leen woo ay làmb ak bëgg-bëggam la wax wala bon ni mu stratégie pour liggéey la loolu dañ ko koy nangul mais ak daal lu munti xew man sama bopp ñoruma xam nga boo ne tuddee man sama bopp rek ñoruma askan wi ñoo ma ñor nañu xool li askan wi bëgg ñu def ko kantaa man amu problème li askan bi bëgg rek laa bëgg kontaan mais Diop waay jaajëf waay ànd ak moom rek jël waaw teel baax nii la mas ñool ñool ñool ñool nga dugal gaa nan dem rama rama rama ayou wala wala nga bët wala nga bët nii. ah bàyyi ko mu jàll bàyyi ko ñëwal dara moom. dama dama optation. Gracias, vos. Ganen. Ganen.

pat nee na gàtt di jaay même nga jàll rek. doon ñëw bàyyi tey indi oto mat nee na gars bi yaa même nga jàll rek. doon ñëw fay tey indi oto